foire internationale de Dakar melatul comme ni mu meloon bu njëkk ba ndax manque de médiatisation bi loolu nag nekk gis-gis kii di Malick Thiam bokk ci artisan yi nga xamante ni ñoo ngi jógee ba Thiès ngir rek mën a propulser seeni secteur mais foire bi sant yàlla rek di ñaan euh, promotion bi yokku daal waaw ak publicité bi waaw loolu daal la ñaan mu yokk waaw mais sinon accident ci jàmm mu exposé nu mais publicité bi daal moo des quoi. waaw médiatiser bi moo des quoi waaw dañ ko war a gën a yokk daal nga xam ne moom foo dégg avant foire bi ñëw sax ñëpp xam ne am na foire internationale de Dakar. non c'est que le problème mooy dina am impact parce que lu mu publicité bi gën a jàll ni ñu gën ko dégg di gën a ñëw mais publicité bu jàll ñu ko war a dégg ñëpp duñ ko dégg quoi. ñu fekk fa yu su tuuree nekk ab ndaw di jaay lépp li nga xamante ni luy boisson chaude waaye moom mu ngi jàpp ni rek ci weekend yi lay gën a gis boppam ci loolu mu ngi ñaax nguur gi mu jàppale leen bu baax. waaw xam nga instant bii na nag li nga ci mën a wax du bëri parce que nii fête bi mu ngi doog a annoncé nii duggaguñ ci bu baax sax. gars yi ngi faral di ñëw nag mais bu ñuy ñëw instant bi nii weekend bi la ñuy gën di ñëw quoi weekend bi moom si lay affaire yi di gën a dox tuuti tuuti mais à part ça moom waaw ñu ngi ñu ngi jaayale ndànk-ndànk di waaj di ko fête bi quoi waaw ñu ngi ñu ngi raamaale quoi. foire internationale du Dakar doon bërëb bi nga xamante ni jaaykat yi jóge ci sous-région yi ak ci yeneen diwaan ci biir réew mi di daje doon. waxtu wu am solo ndax promotion bi ci nekk ci loolu ñoom exposants yi ñu ngi ñaax autorité yi ñu gën ko médiatisé su ko defee mu gën a am doole.